honorable député, chers collègues Abdoulaye Wilane et Amindiaï de Nibi, monsieur les directeurs généraux, les PCA, honorables députés, honorables au conseil des collectivités territoriales, honorables du conseil économique, social et environnemental. Chers jeunes, chers étudiants, de la région de Kaffrine maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam monsieur le délégué régional de Kaffrine damay tàmbale d'abord ci samay kàddu di gërëm le président de la République son excellence monsieur Macky Sall di gërëm le Premier ministre, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Amadou Ba ci choix bi nga xam ne moom lañ def ci sama jëmm ji def ko ci jeunesse su Sénégal muy jël coordination nationale pôle parrainage dénk ko ndawu coalition Benno Bokk Yaakaar donc monsieur le ministre candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar au de la jeunesse sénégalaise et particulièrement de la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm le président de la République ci loolu nag damay remercier féliciter le délégué régional de Kaffrine ak l'ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la région de Kaffrine ci liggéey bu rafet bi ngeen jot a def liggéey bii nag dafa am ko waral parce que dans la région de Kaffrine il y a une dynamique d'unité une dynamique de cohésion autour du délégué régional c'est pour cette que vous avez réussi à faire cet excellent travail. Vous aviez un objectif de 120 000 parrains. Aujourd'hui, nous avons reçu 130 000 parrains. Donc vous avez largement dépassé l'objectif que le candidat et le président de la République avaient assigné à la région de Cafrine. donc loolu nag liggéey bu nga xam ne li ko waral c'est parce que da ngeen ànd doon benn c'est parce que da ngeen ànd juboo travail autour du ministre Abdoulaye Seydou Sow loolu moo tax ñu am résultat boobu